seen collaborateur yi maa leen di nuyu chers collègues les journalistes ak assistants yu fi nekk nuyu naa leen monsieur le ministre président Ousmane Sonko muy président Ousmane Sonko depuis mu nekk ci impôt et domaine ngeen ko indi problème di ko topp di ko tuumal di ko toroxal ci kanamu njabootam ngeen ne mun mun ngeen ko toroxal mais yàlla toroxalu ko président Ousmane Sonko incha rabbi fu mu nekk njabootam la seet si si njabootam la jóge fii nii fekk si njabootam fële si carcel si si si prison yi ngeen fa yóbbu monsieur le ministre muy benn démb si sa si sa wax maanaam am na yenn tontu yu nga doon tontu danga ne si article euh, L vingt L cinquante sept bi danga ne amoon na ku la ne mun nañ ko retire moo lay ñaan pour nga retirer ko nga ne il faut ñu ñaan la njekk il faut ñu ñaan la njekk njekk bi pour nga yégee ko président Macky Sall ah njekk bi pour nga yógee ko président Macky Sall donc lu président Macky Sall lu mu nekk def yépp affaire maa tay la pour éliminer ay adversaire affaire maa la parce que dafay bëgg nit ñi ñëw di ko suk di ko sukkal di ko raamal di ko siiral ay daalam pour ñu ñaan ko njëkk mais ñun Pastef ñun Pastef de lañ la wax si réew mi lañ bokk ay citoyen lañ te am nañ suñu candidat bu ñu tànn mooy président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko nag il jouit de tous ses pour mën bokk si élection présidentielle lu ñu nekkoon si charte bu ñu teg si yeewi askan charte boobu la ñuy continuer ba tey maanaam tous les candidats ñu nga xamante ne potentiel la dañu war a bokk ci élection élection législative bi de élection présidentielle bi monsieur le ministre bu ñu nekkee éliminé éliminé nga président Ousmane Sonko mais Pastef président Ousmane Sonko moom kese moomu ko de Pastef état d'esprit la ñëpp a ko bokk Pastef suñu direct la nekk suñu xol la nekk président Ousmane Sonko ne yàlla xar suñu xol bi dugal ko si mu nekk suñu biir xol président Ousmane Sonko soo ko tëjoon mille ans bi fii nii président Ousmane Sonko. day des suñu biir xol te Pastef day continuer di dund sama naataango bi nu mu ko waxee Pastef dañ kaa juddaale suñu biir deret la nekk te dafay law pour nga bàyyi président Ousmane Sonko jàpp nga ko mais Pastef day continuer di dox parce que suñu xol la nekk suñu deret la nekk deuxièmement monsieur le ministre détenus yi ngeen jàpp plus de 800 détenus détenus politiques jàpp ngeen ay maire jàpp ngeen ay élus locaux jàpp ngeen ay journalistes képp koo xamante ne taxaw na di wax ci projet Pastef ngeen ne ko ciix yóbbu di dafay écoute nekk ngeen di attaqué nit ñi di te loolu balaa boobu monsieur le ministre yow ñi nga xamante ne nervi yi nga xamante ne ñoo doon topp policier ngeen ni si teg bët caméra yi ngeen ni jox ñu leen di filmer nervi yooyu toppoo leen gis ngeen arme yu ñu mais yéen toppoo leen mais jeunes yi génn di manifeste di wane seen naqar ñooñu ngeen nekk di tëj ku taxaw ku taxaw di wax si Pastef ngeen jàpp tëj muy ay maire may mun a jéey ñeneen ak ñeneen détenus yi nekk camp pénal femme yëpp ñoo ngi en ñoo ngi fa Amidia depuis kañ moo ngi tëdd ngeen la force occulte la mooy force occulte ah force occulte la mooy force occulte nervi yi ngeen xamante ne yeneen nervi yi ngeen xamante yeneen ñuy recruter dugalee si pick-up jox leen ay pick-up yu bees sàkk yi nga xamante ne xaalis boobu xajoon na si askan bi xajoon na si hôpitaux yi wala xajoon na si hôpitaux yi nga xamante ne ñoo ngi lakk wala wala seen seen seen i malade ñoo ngi souffrir mu ne ngeen ko jël ngeen dugal ko si askan boobu noonu mais déedéet ku wax si Pastef ngeen yóbbu tëj beneen bi mooy démb nee nga am na fu nga doon wax di ne Sénégal benn bopp la kenn du ko xaar ñaar mus nga ko wax maa la doon maa la doon suivre am na feneen fu ma la suivre nga koy wax si ay religieux Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xam ne mais pourtant Casamance bee nee sóoraale woo leen de yeneen leen bàyyi. nee nga démb Dakar est en paix la vie continue ah. salaam benn en boo xamante ne ethnique la ku wala ku sant Sonko wala ku sant kii monsieur le ministre ngeen taxe ko terroriste ah ah yëngal bopp di. waa taxe ko terroriste des terroristes waa sud des terroristes joola terroriste mankaañ terroriste ainsi de suite terroriste léegi pël yi ñoom ñooy lan pël yi gënuñu fi kenn di man pël laa man mais gëmul gënuma fi kenn déedéet gis nga nag léegi léegi ni dañuy ñaan fii bu fi benn pël samp ci ndënd pël yëpp a fi yem ak ñeneen yéen Sénégal benn bopp kenn mu koo xaar ñaan affaire ethnique bi ngeen war a bàyyi guerre ethnique mënoo leen ko fi indi monsieur le ministre déglul bu baax lu ma lay wax Casamance Casamance lu fa xew waxoo leen si boo yaa ngi reyante armée baa ngi ti ñoo ngi tiré si kaw doomu sénégalais yi mais kenn du wax mais pourtant yéen jóg ngeen fii di ne da ngeen di dem dem jàppale leen yóbbu fa ay armée dem xeexali leen yéen a ngi bàyyi guy seen biir bët mais yéen a ngi dem génni benn pepp suuf si bëtu keneen Niger pourtant Sénégal moo ngi fi de te ñëpp a ngi teg braqué les caméras fii nii si biir Sénégal mais yéen waxoo leen loolu de mais yéen a ngi dem Niger Sénégal espace CEDEAO la bokk faut ñu régler loolu léegi léegi nag. ko régler. merci. bàyyi bu baax monsieur le maire. merci. bu baax nga merci. La parole est à le suivant. asalaamaaleykum maa ngi nuyu président de l'assemblée di nuyu monsieur le ministre de l'intérieur maa ngi nuyu monsieur le ministre de du travail et du jalo di nuyu chers collègues ak collègues yi nga àndal ñëpp. maa ngi tudd Fatmata daabo nekk xalifiste du département de Goudomp falaa gañe bokk ci Casamance tey ma ñëw. wax leen tuuti ndax mënoon naa lakk sama làkk waaye lu boo gisee ma jël ko en wolof sama parcours leader président Khalifa Ababacar Sall laa leen bëgg wax tuuti pour ñu ko xamul woon ñu xam Khalifa Sall nekk na fi deux fois ministre pendant sept ans Khalifa Sall nekk na fi cinq fois député 1983 1988 1993 2001 ba 2017. Khalifa Sall nekk na fi adjoint au maire de la ville de Dakar pendant 17 ans de 1984 à 2001 Khalifa Sall nekk na fi maire de Grand Yoff pendant 5 ans déglu leen ma bu baax ndax ñii ma ma kii nii il faut ma wax parcours Khalifa Sall fu mu jaar ba xam ba ba mën a bokk tey fi fu ñu war a jëm Khalifa Sall nekk na maire de la ville de Dakar pendant 9 ans nekk na président de la euh, kii de ses élus Afrique nekk na président. de City Alliance nekk na secretaire général de l'association des des maires francophones nekk Khalifa Sall a été écarté des élections présidentielles 2019 bokk ci woon kon par la politique dañuy wax ne Khalifa Sall incha allah en 2024 dina bokk ci élection yi ci kattanu yàlla des élections présidentielles à l'occasion pour moi maa ngi wax à l'occasion pour moi de dénoncer la pensée unique l'on veut instaurer la pensée unique l'on veut instaurer dans la coalition Yewwi Askan Wi dans cette coalition Yewwi Askan Wi la dictature n'est pas applicable dans taxaw Sénégal loolu laa leen bëgg a wax pour ngeen xam ko Khalifa Sall nekk na koo xamante ni bu njëkk xam nga li dégg nañ lu nekk dégg nañ lu nekk mais Khalifa Sall nekk na leader boo xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñoo topp si moom ñoom ñooy ay ay responsable am dañoo roy ci suñu ndax bi ñu fi duggee ba léegi kenn xamuñu ci lenn ci yar ak teggin la ñu Khalifa Sall wax ci yar ak teggin ci la ñëwee fii te lépp lu ñu supplé président kii foofu la ñuy dem dialogue bi nag ñu ñoo ko assumé ndax boo demee dialogue lépp lu ñu fa waxtaanee moom ngay assumé te fii incha allah lépp loo xamante ni indi nañ ko fi pour ñu voté ko dinañ ko voté ba mu neex ndax ñu ñoo ko assumé woon ci dialogue ba kon lépp lu ñu assumé ci dialogue ba ñu indi ko fii ci assemblée dinañ ko assemblée dinañ ko assumé ba mu neex ndax tey Khalifa Sall depuis ban année ak li ma lim fii yépp nit ki nekk ci biir réew mi nekk fi homme d'état nekk fi lu ne kooku ñëw tey bëgg a bokk ci ay élection ngeen ne du bokk kon nag lool moo dul am ñun la loolu la ñuy wax Khalifa Sall booy